man xale Badar la ne. ah parce que yow man yow yow yow man nit ñi lu ñuy wax daf mo metti man yow gaam man xam naa ne man combino man man ñaanu ma la dara. bi combat bi taxawé ba légui wallahi wallahi su dé dégg na ko yalla sul suma nday bi mu jur. mané la dégg nga parce que yow man gafuma man fawuma man dëggantaan njaay lay dundu té li may wax ni barké alcorane bu bis di ngén ci tégg sen bëtt dama koy jëf ma ne mënoo fexe ba ñuy wax reporter ñëpp di wax la arrangé wala lu la neex. est ma la lu ma neex la ñu wax de dama laa ne man ñooñu laa la wax dama la ne yow li ma wax mënoo ci dara. ñii dama leen interdit jàmm gën. mais li tax nga bëgg ñoo nga nga bëgg leen interdit jàmm gën. waaw ñii du ñu àndoon ak état sax duñ fi dugg. Eh, ah kon de kon de rëy na waaye ma bàyyi leen ngeen seere kon. Siteu Siteu Siteu Siteu yaa ngi signature bi neex na. signature bi ñu ngi mais excite ni nga excité nii est-ce que ci biir géew bi boo defee noonu Modou bu am du jaar ak yow fi mu jaaroon ak gars yi kan man du man dama bëgg ngeen wax waxi gars yooyu nga laa bëgg nga jël ko nga teg ko fële kii mm. Baye Fall bi la hey góor yàlla bi man li may def dama koy natt ba mu jot ma def ko mm. gaan Fall yow dogo ba nekk xale ba léegi ñu ngi xamante mm. mosuñu wax lu ñàkk fayda mosuñu wax caaxaan mm-hmm. gaan man li wax nii xaar leen ma le vingt quatre dama koy jëf Modou Mbaye. na la waay sa waay nee na moom day ñëw kon dañuy daje. Modou Mbaye dama bëgg la laaj. Fadam dafay commencé guddi Fadam dafay commencé guddi dafa am timing ku len top, ngeen yóbbu leen trois heures du matin face to face bi neexna na mais top topp affaire bi euh, ñu wat ci plateau bi jox prochain intervenant rapidement gaay intervenant yi jël sponsor yi jël ñu mun djublu ci affaire parce que mbir yi tamit dañ nek préparation combat donc euh, dañu del ci plateau bi jox cadeau Père Lamine Samba encore une fois. question mu bàyyi Babacar mu poser question après ñu ñew ñaan site ñaan ko parce que Baay Faal la te nit ku baax la dañuy rappeler nit ku baax la buur géwél mii ak Fadam ay professionnel lañ ci fànn wi ñu nekk si te it nit ku baax la. te la ma ma maa ngi. maa ngi ñëw maa ngi non man maay wax non man maay wax non lim non li may wax li ma wax man la engagé. non non c'est que c'est que maa ngi ñëw. le mot ñu ñaan si balaa ngay mbéj balaa ngay waaw maa ngi ñëw est ko war a commander si maa ngi ñëw. tout jàmm gën si moo ko. waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw mais li may wax man la engagé man je crois que man ala li ma wax man la engagé. Ah, yow soo paree après yow nga tontu sa tontu bopp man li may wax man la engagé dama ne Siteu nit ku baax la Siteu Baay Faal la comme ni Modou Lo nekkee nit ku baax mais nañu jàpp ni muy Bour Gueweul muy Fadam suñu ay naataangoo lañu. ñoo xamante ni nii la dañuy def seen liggéey comme ni ñu doon comme ñun ni ñuy defee suñu liggéey ñu ñaan Siteu rek loolu ngir yàlla mu rectifier loolu parce que moom nit ku baax la mu rectifier loolu rek parce que Siteu sa wax dafa am solo ci réew mi dafa mel ni waxi président Ousmane Sonko soo waxee nit ñi dañ lay déglu loolu lañ lay ñaan rek nga rectifier wax boobu te Serigne Bamba rek a tax nga jéggale te jéllale Lol nag man la engagé man personnellement non non non non Lamine pour man je ne parle pas à ton nom. non non non, mais grand s'il vous plaît xol xol man ak non la waxal direct. mais man non wax man. defuñu ko waxuñu ko ba non ñaan lu ñuy interdire territoire wa shahidna illa non non ci non dañ non wax suñu xalaat muy man muy Fadam. ki non du non kenn. lam fa am la fa am ay gor am mais dama c'est d'une irresponsabilité catastrophique te dire diw ak diw duñ ci dugg bu ñu àndoon ak état sax duñ ci je pense que je pense que si tu l'as dit. si mais mais mais buzz buzz.